Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la voilà euh, mbokk yi ñu ngi sunu papa euh, Max gannaaw bi nga xamante ne euh, jot na avance su Mama Lamine Pape maa ngi ziar. waaw delloo ziar di kontaan seen taxawaay am na solo gis naa ne daw ngeen xelu gaynde ndax combat bu ñëpp bëggoon. donte biñ ci waxtaanee am na yeneen promoteur yu ci doon wax mais ñu ne suñ kàddu jiitu nañu mais la ngeen waxoon ne ñun euh, dañuy topp rek procédure bi ndax lépp administration ndax bëgguñu ne yenn promoteurs yi doxalee ñun ñu di ko doxalee mais li wértóor mooy ñi ngi tàllal loxo ñëpp mais daal affiche bi bëgg nañ ko te suñ kàddu ginnaaw ba wax nañ leen waaw liy yàq du jóge ci ñun te la ngeen waxoon def ngeen ko dëggal ngeen ko kon daal li ñuy wax ñëpp mooy euh, combat bi taxaw na diggante Mama Lamine ak Garga numéro 2 mais comme d'habitude rek di woowaa Diamaguène Lansar ak euh, gox bi yëpp ñu dugal seen loxo comme niñ ko daan defee rek jàpp ci combat bi euh, le jour ji ñoom ñëpp ñu ñëw waajtaay bi nañ ko teg ci yoon mais loo ci mën dégg combat bi taxaw na kon ñi ngi dëgmal combat loolu nag day am solo toujours ma ne man damay bëgg sama mbër di am combat am ñuy wax teel a jël avance man dama ko bëgg ci mbër ndax en général mbër yi bu ñu jëlul avance maintien rek la def mais bu ñu amee combat dañuy entraîner en masse te loolu dafa am solo Euh, ki nga xamante ne moom mooy Mama Lamine mu jógee ci victoire bu neex mu daal di jël ki nga xamante ne moom mooy Garga 2 ñu bëri ne ku dangereux la mën bëre lool mën xeex lool xajam doy waar lan moo tax nga jël euh, ngeen jël ko. waaw tax jël ko mooy euh, lam mënoo jeexal say morom te ku ne da ngay bëgg a dem ci kanam te ku ne xam ne ne Garga ci kanam la ne kon dañoo bëgg rek jël ko pour mën a àgg ci niveau bi mu ne wala weesu ko moo waral ñu jël ko ne Mama Lamine ku ne xam ne ne mi ngi nekk nekk ci ay dynamique de victoire. di ndaanaan boo xamante ne nii bëggoon na sax Tyson 2 ku bëgg Tyson 2 euh, Garga 2 du ma ta wax ndax Tyson 2 moo daan Garga kon dama la bëgg wax rek objectif moom moom li mu bëgg mooy dem ci kanam euh, moo lay wane combat boo xamante ne xam nañ ne du yomb ndax Garga 2 ndaanaan la mais ñun bëgguñu lu yomb nag. bëggoo leen bëgguñu lu yomb. lan ngay wax waa kër Garga 2 yi. non xale la bu yaru xam naa ko xale la bu ma jox cër xale bu yaru la euh, dañ koy ñaan moom it mu waaj rek ànd ki i mbokkam surtout mobilisation bi nag parce que promoteur bu investir dañ ko war a jàppale na mobilisation bi mat fat ñu feesal stade bi def fulaak fayda di ñaan nag le jour ji yàlla ànd ak ñun. wala mobilisation bi yaa ko wax léegi yaakaar naa yéen tarkindaa yi doo leen des ginnaaw. non ñun kenn ñu ko jàngal loolu moom loolu moom ñu ceewee rek woo nga naa ci goxum soow ñun ñëpp ay ñëw euh, mag ñi mënta ñëw sax dañuy toog di ñaan ak di la gunge de teeru la di xaar nga am ndam ñu teeru la mais moo lay wan ne yëfu tarkindaa yi la. mais yëfu nag même ñi dul tarkindaa di bëggee écurie bi ci lañu di woo waa Gàmbeeg ñëpp euh, ak suñu mbokki bool bool yi ndax xam nga Mame Lamine euh, genn wàll gi waa bool la kon ñi ngi woo ñëpp ci ci bés bi mais surtout mobilisation bi nañ ñëw feesal stade bi del yàlla may ñu ndam ñu ñibbi incha allah. yaa ko wax léegi dañoo wax waxu gaynde Vox Arena ñëw commencé tëgg ay combat gars ay combat coow la ay combat la yoo xamante ne dee su ko neexut a nan nga gisee Vox Arena. non ni ma gisee mooy. ku jis ni ngeen taxawale rek xam ne da ngeen di dund làmb Franc Tyson 2 Mama Lamine Garga 2 non cuune mënu ko ku dund làmb mënoo taxawal yooyu affiche ba pare gis naa yeneen yu ngeen di waxtaane dañ leen di ñaanal rek ngeen taxawal ko waaw bëgguma cee sori mais gis naa affiche yu ngeen di waxtaane dañuy bëgg ngeen réussir ko mais daal loo ci mën dégg ñu mel ni man ak samay moroom ak man ñu ngi ci seen ginnaaw ndax man ma so yéen ku tëgg làmb jariñu di leen ci ñaanal rek réussite te nag liggéey bi yëpp dinañ ci jàpp pour jàppale leen ngeen réussir ko waaw. gannaaw euh, sunu papa Basirou Babou lañ toogal mu jot avance ki nga xamante ne moom mooy euh, Garga mu war a jàkkaarloog ma Lamine Ba. waaw xanaa sant yàlla rek ndax euh, promoteur bu xëyee di wut combat mbarit bu xëyee day wut komba yàlla bu leen dajalee ñu juboo waaw yàlla dogal na ni combat bi taxaw na ñun ñëpp nañu ànd ak tal muy yéen muy nun ak mbër mi yëpp ñu ànd ak tal ba bis ba yàlla yóbbu nu ci jàmm promoteur bi li mu ci doon wut mu am ko nun aussi li ñu ci doon wut mu am ko mu ànd ak jàmm ak salaam ànd ak xeewal parce que jàmm ak salaam it foog mu ànd ak xeewal parce que jàmm ak salaam kese taxu leen di tëgg nañu ñaan yàlla mu ànd ak xeewal maa ngi leen koy ñaanal di ko ñaanal sama bopp ci barke sëñ Basiru Mbàkke mi nga xam ne moom laa yaakaar yàlla na lépp loo xam ne si moom ngeen ci séentu yàlla na leen ko yàlla yontu ba ak Basiru defal toog lu yàgg ñu géej koo gis mu ñëw daal di fekk fi benn xale bu taxee ñu naan ko Mama Lamine mu jël ko lu tax ngeen jël Mama Lamine waa xam nga mbër toujours boo jëlul risque doo doo mën a dem mas naa ko wax moo Lo ba ñuy ba ñuy door man ko booy booy mbër day jël risque boo jëlul risque doo xam mais bu fekkee dañ lay wutal lu nooy ngay dem rek ñu di la wutal lu nooy ngay dem da dem ba benn barab da ngay sës di daanu rek ñu naan lan la lan la lan la dafa amatul sëriñ dafa amatul sëriñ dafa def mii nii mais fekk na dañ la doon jaaral ci ay teggi di la jaaral ci ay teggi mais euh, xale boo ci boo fi toll boo ci toll foog nga jël risque risque dafa baax trop ci mbër loolu moo tax ñu jël ko. sa mbër di ki nga xamante ne moom mooy euh, Garga 2 est-ce que pare na parce que toog na lu yàgg ñëwul est-ce que pare na bi. waaw fii mu ne nii bi may ñëw fii woo ko rek def ma wax ne ma ngi entraînement kon nag kooku yaakaar naa pare na pour bëri ji. bu doon tey tey tey sax nun moom moo nu gënal ah. Hmm? waaw bu doon tey la làmb ji moo nu gënal nun mais yoo xam nga ki nga xamante ne moom mooy Mama Lamine xam nga ni dafa dangereux. ba xam naa ko mais yaakaar naa bu dee danser rek buñ ca demee ca bis ba. loolu mooy combat ñaari mbër yoo xam ne dañuy wax ñaari mbër yi dañuy danser loolu mooy komba combat bu ñu wax ah diwa man loolu neexul de neexul li neex ci combat ñu naan kee man ñee naan man loolu mooy combat. combat kenn warul ñu jublu ci komba boo xam ne nekkul danse. lan ngay wax sa naataango Max Mbergane nga war a jàkkaarloo moom. Max euh, sama rakk la sama xarit la. Euh, booy bu jàmbaare la. si booy bu dëggu la. lu mu la wax moo nekk ci moom. xale bu neex a àndal la depuis muy bëre maa ko doon engagé. kon bu demee ba ba muy engagé mbër may engagé mbër ñu ànd yaakaar naa ni du nu juyoo benn benn heure ci kàddu bu soobee yàlla yéen ak sëñ Basir. mais dafay pour mu daan sa mbër. nun yàgg nañ ci loolu. yàgg nañ ci kii dey day gembu mbërëm kii gem mbërëm bu ku bu mbër kenn daane du teew nun dañuy joxante loxo fàtte nañ ko foofu lañ ko xaatu ni ki daanu mi ngi wutiwaat combat ki daanu mi ngi wutiwaat combat Vox Arena lan nga leen di wax ñu ngi ñëw tëgg ay làmb ñu ne détuwaay ñu commencé ci Franc Tyson 2 ñu dàbbali daal la indil ki nga xamante ne moom mooy Garga 2 ak Mama loo gisee waa Vox Arena Vox Arena xanaa di leen ak accueillir rek bu baax a baax te di leen ñaanal lii nga xam ne moom la ñu dugg yàlla nañ ci réussir ba képp ku leen xamoon daw daw làqatu ci ñoom parce que itam làmb ji fi mu ne nun dana soxla kuy ñëw moo tax képp koo xam ne si yaa ngi jëm si ci làmb ji rek danañ ànd ak yow danañ la gunge danañ la jàppale ci ci fànn yëpp nag danañ la jàppale ci mystique danañ la jàppale ci doole danañ la jàppale ci xalaat euh, rawatina nag gan goo xam ne dafay door a ñëw kooku la ñu gën a sawar di ko gindi di ko wan ne ko nii la ak nii ak nii comme li ma la wax sànq rek ñu fexe ba lépp lu ñu xam si ñu ngi ciy jublu rek mu ànd ak dëgg dëgg rek mu am solo vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.